Le no ¿no? 嗯，bụi hết ở tao nó chấm chữ bao di có đi đói á ốp Dari Senegal ke Musnah. kalau ñëw du jaay de. am na la Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dia ambil tak kamu dah. wala kuy fii Sénégal yi daal ñaan sax waaw kaw gi minute nag saa yu ñu tourné moom saa yi dëkk yi moom jàng liggéey kenn xamul cam est-ce du ma ñëw départ sax bu ki ñëwee ma ne ko saa yu mooy métti waaw loolu lay la mën naa nekk xaw ma départ bàyyi ginnaaw yëgee li ma doon def génnee mu ne ko mataan booy makaan xaaral ma xool néegam ba xam dafay nekk booy mataan yaa so so mataan lay la waa booy ko ñu jow jëngi woo eh lan Salam. ሰላም አብይ Sabi Ibrahim, welcome. Da. ወከንዳ yamtuuji Ah. xaamoo docteur bi dégg nga xaamoo docteur bi xaar ma ñëw am sama portable sax xaar ma ñëw xool sama portable Yeah, hello. Is this Dr. David? Hey, uh, this is Shaq. Shaq, yeah. Shaq Saw. Yeah, my brother is a little sick um, today, and uh, looks like he has a stomach stomach. Um, he's yeah, he has a stomach problem, I think. Um, so, are you gonna be able to come in um, take a look at him? Oh, he's gonna need four shots. Okay. All right, I'll be waiting for you. You'll be here about an hour. Okay. That sounds good. Okay, bye. What? Boy. Mm. Yankton, ya? Eh, pelan, pelan, pelan, pelan. Ba, yankton. waaw oh, Oui, ma jógal toog jógal toog. ah day gën a yokk. bu jógal toog daa am lu mu lay wax. ah ah day gën a yokk ah. waaw wuy ma léegi wan naa docteur bi dégg nga suñ suñ docteur wan naa ko léegi nee na dina ñëw fii ak waxtu nee na bu ñëwee comme que sa biir bi day metti ah, daan la defal faux pochard hmm? luy loolu maanaam maanaam piqûre ñeenti piqûre la lay defar nee na dana dana dana piqûre fii. waxal waxal waxal bu laal waxal bu laal. ah bon doo ma déglu. wax wax rek ma lay dig waxal bu laal. boo yor daa réew. demee naa bu ñëwee daan la piqûre ñeenti piqûre man am damay dem daan la piqûre ah, sa sa sa sa ndeyjoor ñaar ak sa loxo càmmoñ tamit ñaar ok léegi mu ñëw fii ak waxtu rek day ñëw man damay liggéey nekk am ma temps dégg nga ok maa ngi ñëw dem. Ê, thôi, ê, ê, ê, cái, ê, cái, cái, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Сытый бой. Ну то, то, то, то. Ну то, ну то, то. Ну то байню. Ну то, це був дана там. Я я не бачу скажу. Я ю. Ni ni dani ko timi ka ba diko diko pikir nyari pi rumah ni. Ai nyen di pikir. Ya ya yu sko. Man kira ta no. Am di bengai. Ta no. Makan? Ye ye ta na ta na ta na. Boy makan? booy ma gan fii ba Rony. booy ma gan. man nag maa jommi waaye jommi wu